wasaab sama gars yi Malick Ndoye le jeune coof jàpp tey Ngaaka Blindé dafa génne léegi benn sound intitulé Knowledge 3 boobu mu ngi ciy tontu ki nga xamante ne mooy One Lyrical dafa am nag ñaari question yoo xamante ne tey dem leen ko indil première question bi mooy wax leen ma en commentaire noo leen gisee sound bi deuxième question bi benn affaire la boo xam ne dama ko seetlu ci clash Ngaaka Blindé maanaam moom refrain bi day def refrain dañ koy déglu mairie dañ koy koy jàpp. posé woon naa ko question bi mooy temps bi muy clashante ak waa Akhlou Brick mais lii la ma euh, ni mun naa def clash. Mhm. sànni samay pic yi ma bëgg sànni sànni clash yi ma bëgg sànni ba pare xam nga garder musique bi mu commercial ba nga xamante ni ku yoonam nekkul sax ci clash bi dafay bëgg musique bi et loolu moo wane loolu moo indi tey beneen public bi wala beneen marge sénégalais yi. c'est fait exprès c'est fait